dikkati naa réew mi day loo ci mënti dékkit mi ngi mel ni mbàccum gerte Walf Quotidien naan mbàcc moo xam ne dafa ànd ki liif ndax tëj nañu yéene kaay bi mel ni ku naan maan sikundiik sikundiik jine day jommal na Walf Fadjri tribune yéene kaay jox kàddu bu gaan géy dani mun naan du dëgg du yoon réew mi Quotidien naan maan tegal foofu sa loxo ma xamal la ni nag bataille politique ci boppam moo am ci réewum Sénégal te lii lii buñ ci waxul la mu nar a jural réew mi mar day taali yéene kaay bi naan maan diggante nguur gi ak l'opposition bi la ñuy seet du lenn lu dul xeexoo ci seen biir confrontation l'observateur naan maan mi ngi bëgg ñaaw de ndax président Macky Sall ci boppam nee na du bàyyi kenn mu yàq réew mi président Macky Sall ci l'observateur naan leen du yéen ngi may xool réew mi ci boppam laa dul may kenn tarfatal ay ni nu ko yàqee réew mi quotidien naan maan Serigne Moustapha Sy ma ngay woolu opposition be nguur gi ñu toog ci benn table séqu waxtaan Seydi Gassama ma ne nañ wax dëgg ji saa si tembe day réewum Sénégal ab dictature moo fi am Bougane Gueye Dany ci tribune yéen a kaay ne te ko nangu 24 heures a kaay naan maan Bougane dee ngay dalati ci président Macky Sall l'info yéen a kaay moom Guèye kay day jël président Macky Sall xamal ko boppam tribune yéen a kaay ne ma kaay ma nettali la li bugaan wax nee na président Macky Sall aaye gi nga nekkee ci réew mi du dëgg du yoon yaa ngi violer liberté d'expression gi ci réew mi président Macky Sall yaa ngi gëtëng sak askan di leen dundloo jaxaan na ma ci seenum réew ku ŋaañ ñu tëj ku wax ñu tàbbil kaso moo war a jeex ci mim réew bugaan ci 24 heures yéen a kaay naan kon opposition bi nga jàpp ne dang leen di nal ba dootuñu sañ wax ci réew mi mooy dakk naan kon ci l'évidence yéen aaye ba nga aaye meeting bu Mbàkke bi tegoo ko fenn fudul ci tooñ waaye tam violé liberté d'expression bu doomu aadama yi lu ñaawlu pareegunu ngeen ni ràpp signal bu Walf ci TNT bi lii ngeen teg Walfadjri teg ngeen ko seen TV ñetti yoon dafa doy bugaan naan ña ngay naqarlu bu baax a baax jàpp gi ñuy jàpp waa opposition bi rawatina waa Pastef waa société civile bi rawatina waa FRAPP ñi ngi sàkku it ñu daal di leen di bàyyi nu mu gën a gaawee ñi ngi sàkku it bugaan ne liberte doomu aadama yi seen sañ-sañ yi nga xam ne daal dinañ koy tënk ci réewum Sénégal mu dak démocratie bi nga xam ne deltu na ginnaaw ci réewum réewum Sénégal mu dak jiital mouvement gëm sa bopp naan président Macky Sall dafa doy soo xamul buur faatu na ñu ne la buur saay na ndap li ci boppam dañu lay xamal ne fa nga doon tibb jeex na jógal tribune yéen kaay ne si kundigati dina ja jommaloon seen TV ñetti yoon daal dinay jommal wal fu juróom-ñaar ci fan tëjum télé bugaan gay dani ne moo war a xeewi réew mi quotidien mel ni ku naan man ñi ngi seetaande lii raam dëgg-dëgg ca ñag bala jëm te bu fa yeggee mbaa dana baax ci Sénégal l'observateur naan maan en tout cas président Macky Sall ma ngay artu nee na kenn kenn ci boppam la bàyyi mu yàq réew mi te gannaaw fitna yi nga xam ne am na diggante Touba ak Mbacké moom président ma Macky Sall day wax na kii ñoñam ca diwaanu Thiès Sud Quotidien de professeur Maurice Soudieck Dione daal dinay riigal ban président Macky Sall ne ko toogal ma yedd la saa si tembe débat bi ci boppam ci wàllu politique fi ñu ko yóbbu nekku fa ay réalisation ki yeneen lañ waroon waxtaane waaye fitna ci boppam àdduna wërngal këpp dañ ko dépassé l'info yéen kaay ne ma boobu day bàjjo bi moom président Macky Sall ma ngay dallooti dalloo na ab centrale électrique boo xam ne bu yees la ca Malicounda ba yéeni bi naan man ñaareel bala tribune yéeni kaay naan man ca daloo googee moom président Macky Sall dafa ni yéet loxo Maguette Sène ne ko yaay maire model mooy dëgg ca centrale électrique bu Malicounda bi kese lu toll ci juróomi téeméer ñaar fukk ak ñett ci doomu aadama yu dëkk ca dëkk ba war a liggéey ca dëkk ba yéeni kaay bi naan maan yemuñ ca am nag maternité gu yées goo xam ni taxawal nañ ko ca Malicounda ab machine d'échographie ca Malicounda stade municipal ca malikunda ay piste yoo xam ni war naa tax ay dëkk yu mel ni taaxum Malicounda ngoxom ak mbuleem ak gañaa bugg gu dootuñu soreeti am yéeni kaay bi naan man fekk si mobilisation boo xam ne doy na waar lool l'évidence yéeni kaay naan maan waxtu woowu ca jaaram ca diwaanu Mbuur moom Cheikh Issa Sall it mobilisé na daal rafet lu bu baax a baax liggéeyu président Macky Sall yéeni kaay bi naan maan taxawal nañ pose bu première pierre bu camp GMI bu Mbuur maire ba naan président Macky Sall la ma la waxoon rek gestul Mbuur te def ko ab région l'évidence yéeni kaay naan maan mbaadu këram day bëgg tas moom président Macky Sall tribune yéeni kaay naan maan en tout cas nga cëb tournée tournée boo xam ni fu mu romb ay gaayam mobilisé dem ca Tiwaawan fekki fa Jóob si mu mobiliser moom it wan président Macky Sall dooleem turbine naan man ca jaar ga mu jaar ci dëkkub tedd bu Maodo boobee daal nañ ko fay teeroo ni buur moom président Macky Sall lépp nag ci ndamal Benno Bokk Yaakaar rawatina nag ci démonstration de force bu Jóob si na ne dama ne këram tasul Pape Modou Fall directeur de l'emploi ci tribune yéene kaay naan ko déet ak lu mën a am mooy sunu candidat moom président Macky Sall neex ak naqaree ci yam taal réew meeg bañ ko taala ci yam moom président Macky Sall Sall ngaari lam tooro Bourguédé candidat tribune yéen kaay naan kon baa mbaa sa sekk ànd na ci lii ndax moom Idi ci boppam saa si tembe ña ngi koy fexeel ca pale ba ndax nag ay feem la soobu moom Idi sa si tembe na ngir bëgg faagaagal président Macky Sall ay fa nekk ci boppam moom Idi pexe bu njëkkum Idi moom moo di gannaaw conseil économique social ak environnemental moom Idrissa Seck bëgg-bëgg moo doon nekk PM waaye itam numéro 2 bu président Macky Sall yéen kaay bi des bi mel ni ku naan man moo Idi ku mu yàq ku mënta gagné sa bureau de vote mën ngaa réew te nag wax ji wax ji mooy lan la Idrissa Seck dëgg dëgg dëgg ragalee président Macky Sall naan man coow li coow li day mooy wuutu président Macky Sall lii mooy bëggu-bëggu Idrissa Seck njiital dakaar dem dikk ci réew mi ko di mel ni ku naan mukk moom Ousmane Sylla naan président Macky Sall mooy sunu candidat naan waa réew mi yër leen xool te bu ngeen yëree di ngeen gis xam ni président Macky Sall mooy sunu candidat bugaan géy dani ci tribune yéen kaay mel ni ku naan leen mukk moom président Macky Sall kay yàq na réew mi nit amatul sañ-sañu wax wala jëf ci réew mi kooku bu ngeen xëyee tey ne dañ koy joxaat sunum réew mbaadu lu faat sénégalais yi fa ko ngeen di seet le quotidien le quotidien naan maan ba ci kilifa diine yi saa si tembe day ñi ngi ñaanal réew mi monseigneur Benjamin Ndiaye nee na mënees naa débattre ci réew mi de te xalaat ci sax mën naa waroo ci réew mi waaye fitna gi daal moo mën a ñàkk ci réew mi bugaan gay dane ci turbine yéene kaay naan tooñ fu mu yendu ndax jàmm dana fa fanaan réew mi ci boppam président ki Sall mi ngi ko jëmal ci guuta goo xam ni maar day taali waxuñ ci bés bi le jour naan man en tout cas Moustapha Niass moom ma ngay weddi nee na AFP ci boppam amut benn candidat yéene kaay bi naan man lii la tontoo Aliou Sarr bi naan man bul dem kaay ma xamal la ni am na contrat boo xam ni moo tabax lycée bu Sandiara contrat boo xam ni it maar day taali juróom benn milliard lan jox CSTP bu mbay fay laas mel ni ku naan man acam ni ki démb combat bi dox diggante Bombardier Tafatin neexul neexul ni news naan man di naqari dëgg ngi nii demal ba njébbeen gànjool commune ba ci boppam ma ngay exploité zircon waaye abri provisoire la ndongo yi di jàngee daay gu métti moo fa mujjee am daal di lakk salle de classe nga xam ni ay abri la woon yéen kaay bi naan man demal ba Kédougou Kédougou demal ma ba Bakel fa nga xam ne falo la or fer ak mar bi di jógee ñoo gën a ci réewum Sénégal seeni yoon ya camion yàq nañ ko tax na dox lañ dëkkee l'école ya amul clôture ndox mu la amu fa moone ne lépp loo xam ne richesse minière la yéene kaay bi ne ma foofee lañ koy exploité te askanu Sénégal booy wër ñu ndóol demal ci gox yooyee lépp lu fa bàyyeekoo taxañ nañ ko yóbbu bitim réew lii nag la ñu naan dëgg-dëgg bay sa weewu tànk te lii moo manqué ci réew mi ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te